على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين wa radiyallahu taala an cheikhina wa murshidina mawlana al abdil xadim wa an jamici mansubihi min al ahli wal atbaaci wal ahiba ashaaba samaa al mashaayikh wal ulama maali wasiri daaxiliya wal wafdal murafiqa lah ashaaba saada assufara wa aada assilki diplomasi al muctabari bi Sénégal ashaaba siyaada al ixwa fi llahi wa fi l irada ayuha alxaflu alkarim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa baadu fa bismi alxalifati alaam liltariqati almuridiya alcheikh mohamadin muntaxa mbake xafidahu llahu taala wa rahahu wa zaadahu wa zaada min nasrihi wa tamkinihi yatibu li an uwajjiha ilaykum hadihi alkalima shakiran lakum ومنوها بجهودكم المباركة ومواقفكم النبيلة وتضحياتكم المقدرة بمناسبة الاحتفال بالثامن عشر من صفر في هذا العام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة هذه المناسبة الميمون التي نحيي بها سنويا ذكر الخيبة البحرية لمولانا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ أحمد الخديم xalihi akbar ridwanillahi albaaxi alxadim fa jasaakum allahu xayran ala haasa tafaahul alaxwi alijabi alladi qad akkada min jadidin fahmakum alamiq wa tatbiqakum aljamil للمعاني الكريمة في قوله تعالى إنما المؤمن إخوة وفي قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى فقد ساهم كثيرا وبوجه مشرف على إنجاز هذا الحدث العظيم الذي أمر به الشيخ الخديم شكرا لله على النعم الكثيرة التي ساقها الله إليه بسبب محنة التغريب التي ابتدأت في مثل هذا اليوم قبل نحو ثلاثين ومائة سنة وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ci turu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak ci ndigalam yàlla na ko fi suñu borom bàyyi mu yàgg lool sàmm ko mottali mboolem am yi ay yéenam ci sàmm ba mboolem li mu bëgg liggéey liggéeyal Serigne lépp mu liggéey ko ni mu ko bëggee ndax kilifa la gu mat kilifa goo xam ne. yàlla suñ borom def na ci moom xabool Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne wa min saadati lfata xaytu xasat allaa yuradduhu fa aadu sir asat Cheikh Mouhamadou Mountakha nag suñ borom defal na ko tawféex xol yépp maase ci nongul ko li yàlla def ci moom loolu nag la jiit ci la ko ko may mooy jëmmam yëpp doo ko jël jox ko yàlla jël léppam jox ko Sëriñ tubaab bëggut dara ci àdduna sëriñ bi nag daana wax nit ñi képp ku bokkutoo ñu ak bëgg rek seen xole yàlla da ko def ci yomb kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kàddu yii nag muy bàyyikoo ci ndigalam kon ci kilifteefu jataay bi nga xam ne sëriñ i Isaaxa Mbàkke Cheikh Mahoudou Basir mi nga xam ne sëriñ bi moo ko fi yebal mu ànd ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñëw teewal ko fi sëriñ bi kon ak mboolem Cheikh sëriñ Tuubaa yi ak mboolem taalibe Serigne Touba yëpp kon ñu jottalee kàddu yi ci ndigalam kàddu yi nag la ci jiitu mooy sant leen gërëm leen yéen ñëpp ci seen teewaay ak seen taxawaay ci bisu Serigne Touba yi ñuy dugle woon ngir ñu dugg ko ci santale yàlla ci xéewal yu rey te baru te bari te yaatu yi mu jëlee woon ci nattu bi nga xam ne mi ngi leen fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar 1313 si jide kon yàlla na leen yàlla fay jasa al xayri wa xayral jasa sëriñ bi nag nee na balaa dugg ci kàddu yi day ñaanal rek mboolem taalib yi nga xam ne bàyyi ko woon ne seeni kër ngir màggal si bisu sëriñ Tuubaa bi yàlla suñ borom moom leen ci yoon wi ñooñu nag nañ xam ne shahid lañ shahid na ku ko def da ngay boo faatoo rek àjjana ngay jëm kon wala taxsibanna liseen qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaa'un bal axyaa'un inda rabbihim yurzaquun farixiina bimaa aataahumu llaahu min fadlihi wa yastabsiruuna billiseen lam yaxlaqu bihi min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxsunuun wa man yaxruj min baytihi lillaahi wa rasuulihi summa yudrikuhu l-mawtu faqad waqaa ajruhu kon ñoom ñoom nañ xam ne seen tuyaa bàgg na kon sëriñ bi ne yàlla na suñ borom yërëm leen te xaaril na àjjana te dajee leen ak sëriñ bi nga xam ne moo leen taxoon jóg di sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu nee na mi ngi yëkkati gën jaarafeti nduyoo di ko jëmale ci ñu mu bokk lislaam ji bàyyi ko ci këri diine yi ak kuréelu lislaam yi ak seen ndaw yi fi teew yépp bàyyi ko ci biir réew mi ak bitim réew di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ak seen taxawaay bu rafet ci bis bi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu délégation bi bi fi teewal njiitu réew mi di président Macky Sall ci njiital ministre de l'intérieur Antoine Diome ak mboolem délégation bi mu àndal yëpp di leen sant den leen gërëm bu baax ci seen teewaay ak mboolem ñi mu àndaloon di saytu luy yéwénal màggal gi te moom mu nekkoon ci seen bopp di yóbbante ci moom ak sant ak ngërëm ni mu ko ko waxee ci làmmiñam ndax yàlla mi dogal moo leen boole jamono xam ne it yéeneem ci moom ak cofeeram ci moom kon mi ngi koy ñaanal suñ borom dëgëral ko te sàmm ko mu mboolem mu àggale ay yéenam di nuyu bu baax mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew di rafetlu seen taxawaay ci diggante Sénégal ak seen réew yi ñu fi teewal di nuyu bu baax mboolem ñi yëngatu ci luy defar am réew ako askan. di nuyu bu baax itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew lépp yi fi teew yëpp di nuyu bu baax mboolem ñu jot li fi xew ba ñëpp mën cee jot. ak fu ñu mën a nekk di gërëm bu baax mboolem ku dugal sa loxo ci màggal gi ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee woon di nuyu bu baax ñu bokkal bis di képp ko yaakaar sëriñ Touba ginnaaw ginnaaw cant ak ngërëm ak nuyoo yi mu jiite nag mi ngi ñëw ngir fas yéene yëkkati kàddu yi labirante jëme ko ci ñu seqal diine ji ak réew mi di jox ndigal ñi mu sañ a digal sañ leen tere te mooy njabootu Serigne Touba gi nga xam ne loolu mooy buum gi leen lëkke ndax ab taalibi kat Serigne Touba wax na ci lii melokaanu taalibi ndax la wax mooy sifaatu saadixil muriid bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar asidqu fi mahabbati seyxi abat summa imtisaalu amrihi su warat nee na képp koo xam ne nee nga amuri saadix la bu dee dëgg ci yow boo xee xoolee melokaan mu nekk ci yow na na la wóor ne sag murit wér na waaye bu ca lenn manqué rek na nga xam ne sag murit wérut yaa ko wax waaye Sëriñ Tuubaa jàpp ko la ci jiitu nag mooy dëggal ci sopp suuf sëriñ ak lu mu la nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko wa ba ca resit mooy bañ a diingat sab sëriñ doonte ci sam xel la ba ca resit mooy wama hawa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari kon nag sëriñ bi wax na ne nañu xam ne loolu mooy buum gi lëkkale taalibe yi ak Serigne képp koo xam ne def nga loolu wala mandarga yooyu nekk ceew na xam ne sag taalibe wér na ku ko deful nag Serigne Touba daan wax nit dana ma tuddoo te bokku ci sama njaboot boobaa nañ jàpp ne loolu ca la bokk la ci jiitu nag mooy li nu bokk nu julli ji te nu war a taxaw temm def suñu jitte ci li koy sàmm ak di ko aar te loolu mooy diine lislaam ji nga xam ne yàlla suñu borom moo ko tàndal te rasulullahi sallallahu alayhi jàngal ñu ci ay waxam ak i jëfam anam yi ñu war a dunde diine jooju ci sunuy wax ak sunuy jëf ak sunu biir ak ni ñu ko war a dundee ci sunu diggante ak fu nu fu di nekk te xam ne ñun ñëpp ay sàmmu lan ay sàmm lanu yàlla def ci biir sunuy njaboot te bu ëllëgee sunu borom day laaj kenn ku nekk ci nun ñaa nga doon sàmm kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati sëriñ bi wax na ne nanu xam ne bis bii nu fi dajale Serigne Touba moo ko diile woon wax ne ñu ko ci santale yàlla ci xéewal ak mayu yaatu yi mu ko jagleel te mu sababoo ci nattu yi mu tàmbaloon ci bis bii seen seen teewaay rafet na lool chakara allahu mashaayakum wa ahsana jasaakum te noo xam ne wootu sëriñ bii nga xam ne mi ngi dugg ci biir waxi sunu borom ji mu wax ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa yaamuruuna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkari wa ulaa'ika humul muflihuun ak li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha yab'athu li haasihi al umma ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha ci loolu la sëriñ bi digal ca borom mu wax ko ne ko rabbi ashaabaka bil himmati dinaa bokk suñu borom waajale waajtaay wu mat sëkk ci yitte ju kawe ak xam-xam bu sell te yaatu ak pësteef bu dëgër ak fit ak jom ak njàmbaar goo xam ne la ko lal mooy rabbaani goo xam ne dara kooju ko moo tax bi yan bi agsee ci moom dafa jaayanteeg suñu borom ne ko ruugi da laa bindul ba xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye bu ko ruugi attanee jom ji ak fit bi attan na ko mu daal di jóge xam le ne lislaam rek mooy diine ji fi nekk ndax mooy diine fa suñu borom inna diina inda allahi lislaam ba tax mu wax ne diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu diina jooje nag mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan sëriñ bi nag wax na ne ba may dem ci géej gi ñett yooyu ñëwuma ci nabiyul musar ma ci malakul muqarab moo wax ne ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqi wal ixsaanu bi tasawuf moo tax mu wax ne adduhoo ila l bi tawxidi wa ma raytu anhu min mahidi lillahi adduhoo bi tafaquhi billah may leen li xayrihi wa kulli qabila lillahi addumo bi tasawufi maha makaarimi al axlaaqi wa huwa chamia mooy yoonu sunna di yoonu tasawuf moo ëmb yu baax yëpp di yoonu di yoonu yeesal tariqatun sunniyatun suufiyatun tajdidiyatun jaamiatun di yoonu xam-xam bu am njëriñ ak jëf yu ak i teggeen yu ñu gërëm al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabu mardi xam-xam bu am njëriñ nag la ci jiitu mooy xam sa bopp xam lañu ñu lay defloo ak nañu la koy defloo ci loolu kon nit ki dana xam ne ab jaam la yàllaa ko moom mooy tax mu mën koo jox lépp lu mu am yooyoo yooyoo ko ci moom ci ragal yàlla ak la mu jur moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne al ilmu ma aksaba xasiyata al alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim mu soññ sëriñ sëriñ bi wax nag ne mu ngi soññ ni ngi soññ ñëpp ni mu ko santaane woon ci sàkku xam-xam boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ne koonoo maan fil ilmi raaxibiina li wacci man bihi yuqimu diina wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantabi al amalu saalih nag amu na yetti mbir mu jëkk mi mooy topp yàlla te al ibaadatu mooy boole al ijtinaab al imtisaalu jëfe ndigali bàyyi tere ñaareelu mbir mi ëmb na mooy kasbul xalaali mooy daan sa doole ngir dundal sa bopp ak ñi nga jaboote ci anam nga yàlla gërëm ñetteelu mbir yi mooy alxidma te mooy jaamu yàlla ci jaamu bi di leen dimbale ci sa xam-xam ak sa am-am ak sa man-man ngir yàlla ak sàkku ngërëm ci ñoom al al adabul mardi yu nag mooy amit teggin sa diggante ak sa borom ci gërëm ay dogalam mu ñu nattoom sant ay xéewal ak ak ami ci sa bopp ci sàmm teraanga ji yàlla def ci yow fexe ba bañ a def ak mbañ ak bañ a mel lu tax ñu xeeb la wala ñu yeb la ak ami teggin ci sa diggante ak sa borom ak sa moroomi jaam yi ci wormaal képp ku la mag ak yërëm képp koo mag ko maaseel ku ne nga teg ko fi nga teg sa bopp moo tax Sëriñ Tuubaa daan wax ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee gudd fan ne ko dooma fi bàyyi ne ko ma leen dalal leen wax ne dee leen mooy safaan bi ndax bu jugee gàttu fan ne ko dooma fi bàyyi sawara ne ko matière leen dara leen dee mooy ak tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñoŋ dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane lay womat te seytaane ku mu womat safaan ba la jëme dee leen mooy waxee bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontool bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xaj na ca dee leen mooy yow fétal te jaar ci ngir ma ndax kuy fétal ku nekkat kuy fii lay mujje tariixatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir wa jaalu mihlika ka nafsika sawa li washi xaalixin ala al arshi stawa muy muy woote boo xam ne nag jaamixa la dafa am mbootu yu baax ya ko jiitu yëpp ndax sëriñ bi dafa tànk ci ñëpp moo tax mu wax ne a'immati fi lfiqi maliki al ali wa shafii wal anafi wal xanafi wal anbari tawaarifu saadaati ujaddidu naasihan li wacci li si ala midaadi wa mirqami digal na ñëppit ñu jariñ ci ñëpp ba tax mu wax ne wa amma axsaabu laqtaabi wa daawaatu saalihin fa adintu lakum jamian fi l bi kulli ma tayassara lakum minha jamian xaytu wajadtumuhu lii mooy woote sëriñ bi ci la tërbe ñi ko wuy si woon jaayante ak moom jébbal ko seen bopp mu taxliya leen ba ñu set wicc ci mbooleem ay bi bakkat yi jàngor ak jàngoro xol yi biir yi ak yu biti te ca taxliya leen fees dell ak jikko yu baax yi nga xam ne ku gën ku ne ci nga gëne alhaaji bu Buso di kenn ci ñoo ñii moo seere woon loolu wax ne mosumaa gis taalibe Sëriñ Tuubaa ku leen gën ak ku leen gën a yiw mosu koo dégg mosu koo jàng fenn moo tax mu wax ne huwal xaysu huwal xawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsamana wal kullu saafin wa naim moo tax alxaadima jaxate kala seere woon na ko la ko jiitu ginnaaw bu ko taalibe murid yi liggéeyaloon ab liggéey mu seetlu daan gis ab yar ak pëstéef ak njub goo xam ne yéem na ko mu bind ci ñoom wax ne ñii ma gis seen yar bi ak dal gi ak damm gi ñu damm seen seen gis bi ak ni ñu yare seeni kàddu da defe ne ñu wopp lañu di wër ko leen faj wala ay ñi ay ay néew ji doole ñuy sàkk ku leen sarax waaye ba ñu tàmbalee liggéey ba seen lépp ak njàmbaar la goo xam ne dara rëyut fi ñoom dara yittaw leen te boole ko sellal goo xam ne yéeme na ndax doo dégg seen kàddu lu dul ñu tudd yàlla te waxtu julli du leen raw du farata du sunna tey du ñu xool lu ñu war a xool dañuy du mooyu sëgg mu jàlla murabbawna xat xaddu min afsaarihim xadda ka aswaatihim xatta yudannu maan marda araadu atibaawu masaakina hummuhum zawu sadaqaatin muxridu rabbihim xarda mu àgg ci wax ne walam talqa minhum waahidun ajnabiyatan tuxaazihi illa huwa atraqa aw oxda wa ma rafahu al aswaata illa bi zikrihim wa ma axaru l awqaata naflan wala farda ñoom ñi la Cheikh Ibrahima Jóob almasari doon melal ca waxtaan ba wax naan ruxbaanu laylin masaabihu zalaami lahum fi sufi wal muusi azkaarun wa awraadu yadluuna daban kitaaballahi summa lahum ila almasajidi tardaadun fa tardaadu al islaamu diinuhum wa shukru daydanuhum wa sabu wal kullu sajjaadu ñoom ñii nag ginnaaw bu leen sëriñ bi defaree ba ñu gën ñëpp ñoo tasaaroo ci réew mi nit ñi gis ñoom defaru sëriñ bi ba tax ñu xemmeem leen jëbbalu ci ñoom ngir bëgg am ngërëmul yàlla ci ñoom loolu yi nag mi nga tàmbalaan ci ñi sëriñ bi njëkkee yawi muy ba muy dem ca tukki ba ca nattu ba ak bi mu dellu see ba tey ji tey ñuy ay million ci biir réew mi ak ci bitim réew sëñ ci ay téeméeri téeméeri dëkk ngir sàkku xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey nekk itam force boo xam ne ñëpp leen bàyyi xel ci diine ak xam-xam ak koom-koom ak siyaasatu ba tax na Tuubaa gii nga xam ne mooy capitalu yoon wi doon doon jëmuwaayu àdduna fépp fu ne ay nit di fa jóge di nemm ko si dëkk bi te ku fi ñëw faaw nga delli suwaat fi ndax yëg-yëg bi ngay am sa diggeeg sa borom te loo fi ñaan te sellal ko yàlla sunu borom defal la ko moo tax Cheikh Mamadou Fadil ci Basiratum tuxal si màggal gi Touba ngir bëgg ñëpp jariñu ci dama ko waxe woon dëggal la Serigne waxoon ne nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa indee Touba bi gis min waxilaam alaya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratin minan yàlla barkeel ko boo mujj nekk dëkk bi gën a rëy ci senegal te ma wax fu wér laa ko teg li fi nekk ci ay daara mën na junni ak juróom-ñeent téeméer li fi nekk ci ay juma juma yu julli ak juma mën na téeméer ak juróom-benn fukk li fi nekk ci ay jàkka ay téeméeri téeméer téeméer la kon la Serigne Touba waxoon ne wàccal goo gis ma bind ko fekk na yàlla suñu borom defal ma ko te ma waxoon wal tusbitan fiihi jamaatun tuxim alsalawat alxamsa daban yaa xakim wajhalu daban maskana tibaai li sunnatin la maskana tibaai li fi nekk ci ay daayira ak ci mbooloo yu yëngu ci xam-xam ak culture ak social kon li sëriñ bi waxoon sëriñ Bay Sarr ndax dafa nekk ci njaarim sëriñ bi di waxtaan sëriñ Bay sëriñ Bay Sarr ko ànd ak tëgg mu rëy rëy ba coole bari ba kenn déggatut ñëpp xaw a jaaxle sëriñ bi wax ne bàyyi leen ko mu agsi xanaa bu agsee dana wax lim ci jublu ba suñ bay saar agsee sëriñ bi ne ko Babacar ana nga doon def loo ci jublu mu ne ko Mbàkke dangaa xare ba daan te bàkku wa te loolu mun ma ko muñ moo tax may bàkku sëriñ bi ne ko Babacar danaa bàkku sama dëkk ba ca Touba ak sama jumaa jama fay def mooy sama bakk kon nañu wéy te bañ a geesu ndax am na lu doy sëkk kon bis bi mooy sunu bis bi gën a rëy moo tax nu moom sunu bopp moo tax nu jot sunu bopp ba tala jaamu yàlla ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké woon ndax bu pexee tubaab bi sotti woon kéefar not ci réew mi lislaam fay ba faw moo tax sëriñ bi daana wax ne yoon wi attan na lépp ba mu des na tanasuru moo tax mu wax ne law tanassartu la daxaltu naar wala xiyaas billahi taala sëriñ Tuubaa yàlla da ko defee ay xusuusiyaat yoo xam ne da koo jagoo te bokku ko kenn ci nit yàlla yi moo tax mu wax ne kiimaanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kulliyati mujisatun taaxarat wa xayra xayraatin ladayka du xirat dafa waroon a feeñ ci njëlbeenu jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daxañal ko xeetam bi ba waa mujjug jamono bu demee ba bu demee ba adduna lëj ba li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci mujj jamono feeñ ci wàllu bon bon ak yàqu seytaane ba seytaane bàkku ba jàpp ne daan na wax ne la mu bëggoon sotti na la axuyannahum ajmahin summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajid aktharahum shakirin mu dëppook sant yàlla gi ñu def ca booba la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di génne mbërëm ak ca ci googu di Sëriñ Tuubaa roof ko mbootam xamal ko jàngoro jamonoom wan ko fi mu war a jaar fi mu war a jaaral nit ñi bañu mucc tey ak ëllëg li yonente bi sallallahu alayhi wa di rënki mbaram mbërëm ne la saytaane di njembe mbërëm moo tax sëriñ bi daana wax ne maak tubaab yi dañuy njëkkante xol yi koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw waaye koo xam ne njëkk nañu ma ci moom ñàkk naa ko bu faw mooy alxadaratul xarbiya mooy civilisation occidentale moo tax mu daa wax ne yoon wi nangu na lu ne ba mu des a tanasur te mooy nurul nurul tubaab yi ci pas-pas ak jikko moo tax sëriñ bi mu ñëwee tubaab yi indi seen système tëral ay yoon yoo xam ne koo ci jaar sànku tey ak ëllëg sëriñ bi dafa xàll aw yoon ca wet ga muy jëmmal asiraatal mustaqim mu yoon wa sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mu ràppoon mu ràppoon mu dekkalaat ko xalaat yoon yi moo tax fu mu fekk tubaab yi jaar day rëdd aw yoon ca wet ga mu nekk ba badil ba ñu indee model boo xam ne ci weddi yàlla ak sàmm sa njariñu bopp ak jëfandikoo néew ju doole yi ca la taxaw sëriñ bi dafa indi yoon woo xam ne ci yërmande ak gëm njariñ bindee fi ak xidma ak fàtte sa bopp bi tubaab yi indee modernité jàpp ne balaa kenn teg faw mu jaar ci ci liñ tëral te la ci jiitu mooy fexe ba dox diggante nit ki ak boroomam dagg buumbi jaam yëpp doxan seen digge seeni morom buñ ca yemoon sax mu baax waaye dañu saa boole dagg buumbu jaam gi dox seen digge seen borom ba loolu ba loolu yóbbu leen ñu sankute gu wér ndax dañoo jël nit jox ko cëru palaasu yàlla tudde ko humanisme loolu indi leen jafe-jafe yu rëy seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seeni morom wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ahmaa moom la Serigne Touba di wax naan waaye Serigne Touba andi loo xam ne kenn mësu koo gis kenn mësu koo dégg te ba adduna tukki day ànd ak jamono bu faw mooy shahaadatu daare ni te mooy matlabul fawsayni di tax ak adduna ak alaxira yaqulu ahmadu ila saada yadduul mala bil ilmi wal ibada moo gën a yaatu fuuf li ñu Touba bi andil ci yokkute te lépp lu nu andi da xam ne li sëriñ li sëriñ bi andi muuraale na ko boole ci indi leneen loo xam ne seen xel du a sàgg bu faw moo tax sëriñ bi yitteem yëpp moo doon fexe ba nit ñi dellu ci seen borom ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadani saraftul kulla wal qalbu xaasiru bëggoon bëggoon nit ki jël àdduna def ko ab yóbbal bu koy jëmee ci boromam axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan qaada lil hawa wali safal jinaan minka tazawudi ila aljannati bima li yaxtarta bima li yaxtarta min alminnati moo tax bi tubaab bi indee Quran ca kër gu mag ci njaareem sëriñ bi dafa bind ne loxoo xitaab yaa ama talsasi la daa bu xoatiye la mu wax ne bayit yi moo tax ñu taal fa lamp yi waaye tubaab yi ko fi def bi ñu ko fi def juuluñ ci dara ludul walbati xel yi jëmale leen ci attanasur moo leen ko tax a def teg ca ne wa haza taalimun min man yaxalamu xaainata al ayni wa ma tax fi sudur nee na yàlla mi ma xamal li ci seen biir xel yi xam li ñu ci jublu moo ma ko xamal yàlla mi xam li ci seen biir xel yi moo ma xamal lii ne loolu jublu moo tax mboolem lu ñu indi luy luy luy luy tekki ne nit ki dafa war a am liberté jubli gi lépp mooy dox sa diggante ak sa borom moo tax lu ñu indi na ko julli bi jël def ko jumtuwaay bu ko yóbbu ci ci boroom liggéeyal ko yàlla ngir loolu mën a am nag Sëriñ Tuubaa dafa fexe ba jël suñu xol yëpp dara bañ cee nekk lu al iraadu saadixa def ko mën xaj mën xaj bu ma jaarale nit ñi bu mu jaar te xol nag mooy buuru cër ba nangoo rek cër yëpp nangoo alqalbu kal maliki fil aadaani fil aadaai matee yemil tamit ma aqtidaay tubaab yi bi ñu dikkee li ñuy li ñuy jëkk def mooy àllmanatul xayaati te mooy wuññi mbalaanum diine ak sellal ba dara du ci des te mooy yitte nit ñi du weesu aalamul mulki di dem ci aalamul malakoot wala aalamul jabarut ne ko suñu borom waxe ne yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum xaafiloon moo tax sëriñ wax ne tubaab yi yàlla suñu borom dalee na may ba dañoo xam-xam adduna ba luñ ci xamut rek amuñ njariñ waaye allah xeer da leen ump ba luñ ci xam rek amul njariñ moo tax mu leen tudde abidul maa i wa mooy nit ñoo xam ne benn dimension lañ am te mooy matière seen yitte jëpp mooy def nit bàyyi ma ne ko alxuraan waxee ne ulaa'ika kal an'aami bal hum adallu sabiilan li ñu gëm mooy wa mal xayaatu dunya illaa lahwun wa lahbun maa yuhlikunaa illaa dahr kon boo leen doon waar den wax ci seen borom den fàtte ci Sëriñ Tuubaa sax dañuy jàpp ne yow mii waxi démb ngay sëriñ bi mu dikkee ngir yeesal diina doomu soxna bu ko doomu soxna indilee alliwo mu xool ko ne ndaw lu rafet doomu soxna ju mokkal bind ko ba mu rafet dara gënu ko kawe waaye fexe ba alliwo suñu borom ja buy bind nga fexe ba xam la muy bind loolu ko am yitt ju kawe loolu moo ko war a def te loolu moo war a ittee nit ki foofu la jëmewul nit ñi ba seen bët jëm kaw bañ xool suuf ndax ñu mën a tabax xadaaratun malakutiyatun ala zahril ardi ni ko alquran waxe ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan nit ki ma def mission boobu mooy almuridu sadiq moom la cheikh Mouhamadou Mountakha di faral di fàttali waxtu ne di wax ne almuridu sadiq malaayika yi ñooy seeni nawle ci pas-pas ñooñu la sëriñ bi tabaxoon ba mu ba mu wootee Mbàkke Kajoor kon nag li ñu war def li ñu war mooy sant yàlla mi nu boole ak moom ndax mas naa wax ne sant leen yàlla ndax ëpp leen yéesu leen gimiñ jëpp leen ëpp leen mooy ñëw leen ba dem ma door ñëw yéesu leen itam ñëwum ba dem ngeen door a ñëw gimiñ jàpp leen it mooy dëjëwu leen am ba noppi weddi ma kon nag képp ku ko yaakaar na xam ne moo la tànnal boppam ndax nee woon na xam ngeen foo ma àndee ak yéen ñu ne ko déedéet mbàkk mun na yow ma alastu bi rabbikum ba nga xamee na suñu borom fa la wax ne alastu bi rabbikum day wax ju gudd waaye Serigne Touba nee na foofa laa tànne samay taalibe kon nanu ko jox suñu lépp te bañ a desal dara ndax nee woon na ku ma jox sa lépp ma téye sa ku ma jox sa leen téye ma joxoon ma defaral la ko te ku sellal sa pastéef loo dugg mu fekk la ca te ku ne mën nga koo natt ci boppam te Serigne Saliou Mbacke daana wax ne yaakaar ju tas miinu yoonu ko Serigne Touba li ciy firnde nag mooy daaw. bi wéradi gi amee ci àdduna sëpp mboolem du doon xew-xew ak i ndaje ñu tere ko men ndaje amatu ci àdduna ba Cheikh mu Mountakha joxe ndigal wax ne dara mënta tee ñu jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ñëpp jaayante amuk dogu jëfe ndigalu Sëriñ ñu màggal ba jàll dara fekku ca bekkan benn bakkan rotu ca daa màggal gi ak siwaat mu yëkkatikuwaat sëriñ bi waxaat la mu waxoon ne nañ jëfatoo ko ndigalu Sëriñ Tuubaa mu wàccaat màggal gi jàll mu yëkkati ko waat mu wootewaat bis bisu zikrullahi ñaan yàlla na maa ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mbas mi tàggoos bu faw boobu ba ndëgë ni bu fi desee it néew na doole ba kenn ragalatu ko kon la Sëriñ Tuubaa waxoon ca peste ba rek ay na maa takkoonoo yudrikumul mawtu wala kuntum fii burujin mushayyada kon sëyiñ Tuubaa tënku ci ndigalam rek mooy la am solo ndax ku ko def rek yàlla dana defal la nga bëgg lépp te waxoon yow yàlla suñu borom ñi nga xam ne ñi ngi may liggéeyal di njëkkante jéem a liggéey na nga leen tabaxal ay kër ci digg àjjana inna la siina inna li siina saaraho li xidmati falahumu diyaara ustat jannati yàlla na nga faj aajo ñi sax ci di ma liggéeyal te defal leen mboolem lu ñu bëgg wax di xawaaija li siina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu waxoon na ne at yi mu sax ci galwaa yàlla barkeel na ko ba mel na saxug mboolem yonent yi ak wàllu ak borom xam-xam yëpp na li mu sax ci diir bu àdduna rek ginnaaw bu mu bàyyi ko galwaa barkeel na ba mel na laytul xadri mel na ne gaalo sayduna sayduna nuux nga xam ne képp ku ci dugg mucc raw ba faw Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ubashirukum bi anna allaha tabaraka wa taala xassakum bi maa yaxbitukum bihi kathiru min al min min ahlil xasi faskuruhu ala zalika mubarak yàlla suñu borom defal na ay taalibeem loo xam ne képp kuñ jamonoontee te leen ci ñaan loo xam ne tawfeex la joo xam ne nañ ci sant yàlla bi leen ko defal nee na képp koo xam ne aju na ci man tam yàlla suñu borom daan la aar yaxmi ilaahi bin nabiyyi kulla man bi yeloo zafalahi du aman waxoon na itam ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fii jëy bi afdali wara silfadli nee na jël na jëmmam ak mboolem ñooñam tàbbal leen ci jibe rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jël na kon nag xam naa ne waxtu wi du gudd dañ koy tëje rek ñaan gu Serigne Touba ñaanoon ndax Serigne Touba dafa waxoon ne ñaari baat rek la te Serigne bi kat neewoon na ma nañ fexe ba lu topp ci rek waxtaan wi jaax Serigne bi dafa waxoon ñaari baat rek la allahu akbar ak laa ilaha illallah mu ne allahu akbar mooy lu mu la fekk leen lu ne lu fu gën a war ñëw na mu ne laa ilaha illallah mooy foofu mën di jëm te du ma daal foofu doo fi jëri dara kon ñu ja ñu ñu jeexale ko ñaan gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa di si ñaanal jullit yëpp naafion bi yan fail ibadal muminin wal muslimina wal muslimin wal ibadal muhsinin laka laka jaaltu diinaka al islaama wadiatan faltakfina zalaama ajib bila raddin wala taaxiri wa indaka jaalni surur al xayri awdaatuka al ummata fakfina rukun fakfiha rukun lizzalimina hablahum fiika sukun ورد مكائد العدا لهم بلا تزلزل فينا وشعيا نقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مكرم يا بطط بيني وبين المجرمين ففيك وسع للعيال المسلمين فككت يا قادر يا مقتدر رقابهم من كل ما يقدر يا حي يا قيوم لاستجبت وليك ولك يا رب الورى قربت هدد عداك بشر العيال يا من كفى الحكام والأقيال loolu firndee ne Serigne Touba kon mboolem lislaam jëpp la jaboote ñëpp la jàppoon a njabootam kon ñu jeexale fa kàddu yi jox Serigne bi mu ñaanal ñëpp ba déwén ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Cheikh Madou Bachir ñu déglu tuuti Sidi Maxtaar dafa am lu muy lu muy fàttali. waa ñu ngi sant bu baax sëñ Mouhamadul Bachir ci kàddu gu jot gi te rafet di fàttali ne. màggalug julli géej gi àllarba lay doon àllarba àllarba le di ñëw mooy màggalug julli géej gi ñu koy saytu ñu koy fàttali wëllëre yi ak mbokki taalibe yëpp ci njiitul sëriñ Youssou Diop xisbu tarqiya ak soxna Sooda Xumma ijaada muxni naa nin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi